nar jëm ci ubbi ay classe alphabétisation té ñëpp xam nañ né amna na euh, solo bo xamné bu ñu jox collectivité territoriale ci acte 3 de la décentralisation ñom ñu porté neuf compétences transférées éducation bokku ci ñuy collaborer bobu ba légui mais collaboration bi amna lu ci des lu bare sank wax nañ ko ci salle bi en français collaboration bobu nak lañu bëgg mu gëna a dëgër ñu gën ko renforcer aussi bien au niveau central que au niveau déconcentré ñi ci suuf pour que ñu mun a former encadrer ni nga xam ne ñoom amuñu woon chance nekk ci école yi wala buñ ca duggee it teel nañoo génn. donc tey gis ngeen ne représentant yaa ngi ni contexte bi xaw na doy waar parce que ñëpp xam nañ ne ñu ngi dem ci euh, élection locale euh, le 23 janvier ñuy ñaan nag ñun ñu gañe terewul ñoom ñu ngi nii. Euh, andi de représentation pour nous mun a la main dans la main pour relever les défis parce que la population est la en fait parce que l'analphabétisme euh, est dafa peu tard tar ci suñu dëkk plus de 50% d'analphabètes constitué de femmes qui yi ñoo ci ëpp xale yi ëpp surtout xale yi nga xam ne am nañ sax déjà métier mais ils dafa am lu leen pour nous ñu mun a bokk ci économie bi mën a euh, di jaay ci biti di parce que actuellement village planétaire il faut wax foo war war nga mun a jaay war nga mais boo jàngul daf lay daf lay bloqué daf lay téye léegi nag njàng moom la ñu bëgg ñi nga xam ne defuñu ko woon ca école ya wala defuñu ko woon ca daara ya parce que daara yi dañu war a comptabiliser li daara yi di def parce que njàng du rek ak francais njàng mi ci arabe ba wala njàng mi ci làkk réew mi bu ñu ko defee ba ñëpp jàng en tout cas majorité bi jàng defe naa ne bu boobaa la ñu mun a wax véritablement émergence te nag du niveau central bi rek wala ministère ñoo ci war a jàpp mais ñi ci war a jàpp ñi nga xam ne président de la république monsieur Macky bi nga xam ne population yi rek ñoo ko soxal jigéen ñi ñoo ko soxal jeunes yi ñoo ko soxal parce que ñoo ëpp suñu réew te mu metti lool mu ne nag jóg leen ngeen taxaw seet lan ngeen di def ensemble pour xale yooyu mun cee gis seen bopp jigen ñooñu mun cee gis seen bopp pour ñu mun a wax émergence parce que moom en tant que président de la république lu mu war a def yëpp mu ngi koy def lu mu war a teg mu ngi koy def mais du benn sénégalais rek mooy teg pour mu avancer sénégalais bu ci nekk ak fa nga nekk nañu xool nu ñuy def ba suñ xale yi war a dugg ñëw puus parce que ñooy jeunes yi ñoom ñooy avenir dëkk bi ñu mun a bokk pour Sénégal mun a jëm ci kanam loolu tey moo taxoon ñu daje fi véritablement pour mun a tek li nga xam moy programme programme bobu nak mu ngi éducation nationale pénébéjatique bi mais amna yu nek ci yenen gox ci yenen ministère buma jélé palam palam mu ngi ministère de la femme parce que buñu waxé waxee analphabétisme euh, il est féminin donc femme ñu ngi ëpp ñu ngi ci ministère de la femme mais euh, formation professionnelle aussi xalé yi nga xamné métier lañu am artisan yeeg yëpp foofa la ñu nekk donc ministère bobu aussi amna buñuy wax programme buñuy wax PEJA tambalé nañ ko depuis daw té véritablement xalé yi gis nañ né amna solo parce que yoré métier ba pare te mënuloo bokk parce que jàngaloo lolu dafa doy war donc aro enrôlé nañ ci lu bari defe naa ne euh, banque mondiale biñuy financer contane kontaan na kontaan goo xam benn na dina yok loxom mais aussi président de la république xamna aussi importance bi ba ñaax ñu nañu ministère yi ko wër yépp ak surtout ministère des finances et du budget nañu taxaw pour japp ci programme pour mu mëna avancer Lool mo nekkon tay solos ndaje mi nga xam am nañu ko tàmbali na nag atelier bi bu ñetti fan la ñu war ci waxtaan war ci tënk war a xoolaat manuel de procédure bi mais luy tàmbali la parce que dafa war a pérenne ba nga xam ne tey lépp lu ñu bëgg ci éducation alphabétisation lu ñu bëgg si langue national lu ñu bugg si daara parce que nag pays bi dëkk boo xam ne la li ci ëpp yëpp ay jullit lañu kon dañu war a toppatoo aussi suñu daara ba xale ba nekk daara mun a gis boppam comme xale ba nekk ca école publique parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ te suñu dëkk bu dee lii moo ci ëpp dañu war a toppatoo loolu ba ñëpp gisi seen bopp waaye xale yi nekk si mbedd bi di taxawaalu wax dëgg yàlla il faut ñu jóg ci te niñ ciy jóge rek mooy daara yi nekk ci condition yu baax yoo xam ne ku dugg ci daara da ngay kontaan keroog bi président di inauguré daara Euh, Ranérou keroog ñëpp kontaan man keroog laay jëkk dem ci daara yi parce que aw ma woon parce que bi ñu ma joxee daara yi yàggul mais dama dugg dama kontaan bi nga xam ne ma ne lii de dinañ xeex ba mu law ci Sénégal fu nekk am daara moderne bu mel nii. waaw wax naa ko léegi ci biir salle bi nee naa leen euh, éducation compétence bu ñu transféré la alphabétisation nekk ci benn pàcc mais pàcc la boo xam ne daanaka collectivités locales yi commission éducation rek la ñuy gën a di wax duñ sax jëmmal ci sax alphabétisation té muy lu am solo ñu gis ci dëkk bi ay programme du Sénégal da def partenaires mais souvent pour problème parce que collectivité territoriale duñ ko capter am personnel technique xam fan pour lever fonds xam fan pour faire bénéficier suñu ay population ci loolu ñëpp amuñu chance dem école am leen am alphabétisation nek na benen patch bo xam buñ ko développer ñoñu di ci école bi wala ñoñu tay am ay métier te janguñu ñu mën leena a euh, former ci walu alphabétisation ci seen langue ba ñu mën di communiquer bañ di mën di bind ba ñu mën di jaay ak jëndante donc lu am solo la kon donc li dañ koy rafetlu parce que ñun ñoo représenté collectivités territoriales te compétence boobu lu ñu jox la mais war nañu mën a xam ministère bi yan programme la def programme yooyu aussi nan la ñuy jaaree ba mën a lever fonds yi pour faire bénéficier à nos chères populations de ces différents programmes la koppar am na fi parfois comme li ma la wax fonds yi dañ koy dañ koy voter sax ba mu des wala ñu dellu ko des crédits annulés faute d'emploi parce que nous, ñi savons fan pour pour utiliser donc nous na luy dindi parce que ñun fi ñun ñu collectivité territoriale wax ñun li programme bi am bo jaaré ni bo nous ni ci am ñun nous démé daal di def wax ay def parce que lu am solo la école amul donc alphabétisation pour na suñ